de faire un mois pour Sénégalais favoriser euh, à, comment même à 24 heures la qui ne tu kii ci euh, candidat il suffit que son def duit wala def kii les Sénégalais vont voter pour cette personne notamment le docteur Diallo il s'est précipité voilà il a fait une mauvaise communication c'est pas que ça Barthélemy Diaz mais ma discussion Barthélémy Diaz su ko weddee loolu moo am su ko am c'est-à-dire que badolo Bouillotte, buy non ba Barthélemy baadoolo la c'est ce que man maa wa badolo baadoolo la xam nga baadoolo mooy taxaw dina ni les uns les autres les et cetera. tey nga ko meuna wax parce que jot nga li nga bëggoon jot. Barthélemy bu fekke ni jotoogul mairie de Dakar sañul ne les uns les autres et les et cetera lu leer la lay wax badolo mo mel nonou quand Boumoudon Yot ci euh, mairie de Dakar, il était la personne la plus sérieuse et la plus proche de Ousmane Sonko. À travers tous les vidéos. Il ne faisait euh, marquage à l'autre à Ousmane Sonko. Faut faire Ousmane Sonko Barthélémy Mouni Tchouetam. Donc le gars, c'est ce qu'il cherchait. Boumoudon Yot, mairie de Dakar, il a commencé à faire la guerre à Ousmane Sonko. Alors, alors mais avant, Diap Nani peut-être préparer à toute éventualité il est vraiment temps que Passé nous a son plan B. Je suis d'accord. Au cas où Ousmane Sonko ne peut pas être candidat. Mais procès n'a pas Non, d'amane. Ousmane Sonko, au cas où. Parce que quand je dis au cas où. Mais procès, affirme-moi quand je dis au, quand je dis au cas où c'est faux pour la a hmm. parce que fii diggante bi mënoo de procès ba définitif tu condamnation Ousmane Sonko mënul am hmm. mënul am moi, je au cas où parce que au moment où nous parlons je sais que Ousmane Songo est présidentiable il est présidentiable jusqu'à présent parce qu'aucun aucun jugement définitif sur la personne vous voulez faire courir aux Sénégalais oui il faut que ou ou plan B parce que Ousmane Sonko oui mënul bokk mënul alors que nous avons, ne Sénégal 138 milliards à 1 milliard 800 fay ñu xaalis boobu ñenn mën nañu bokk. na dañoo waxtaan la ci lan. ñu ñu waxtaanal est-ce que ñoom ñoom moom xaalis boobu. mais ñoomu ko APR moomul les cent milliards de Karim ak les un milliard huit cent. Benno Bokk Yaakaar moomul xaalis boobu. xaalis boobu sénégalais yi ñoo ko moom donc ñooñu bu ñu bëggee nekk candidat fokk ñu fay xaalis boobu ba pare yow loolu c'est ça dont il s'agit les jeunes supposés intellectuels là si loolu la ñu war a débattre. alors euh, au que di wax ay Ousmane Sonko warul bok Ousmane Sonko mo gëna clean ça les voleurs que tu vois là qui n'ont pas remboursé l'argent Ousmane Sonko mo leen gëna clean donc si boo recalé Ousmane Sonko il faut que nga recalaale ñu ñooñu bo accepter ñooñu da ngay accepter Ousmane Sonko parce que aucun jugement n'est définitif sur lui. alors alors. euh, hmm? ñëw exactement si euh, wal wu ñu mel dañuy dal exactement si. ben pratique bi nga xam tam bees na muy la sonkorisation de partout alors euh, si dîner de gala yi si li nga xam nekk moo di stade match de football yi ñu dal fay amal li nga xam nekk moo ay synchronisation ay synchronisation euh, alors euh, ñu bari nee c'est une nouvelle forme de lutte bi nga xam tam xalé yi engagé nañ ko mu nekk ben lutte pacifique bi nga xam itam ñu koy mëne pour exiger la libération bu Ousmane Sonko exactement peut-être dans son ce rapport de force yi toog nañu adopter une ben stratégie dañuy dem di fekk ji li nga xam ne que euh, rencontre yu euh, pouvoir bi di fa yuuxu li nga xam ne que moo Sonko turu Sonko exactement la communauté internationale ñep di dégg enfin loolu ban loolu lan la mën a euh, lan la lan lay wane exactement la synchronisation de partout bi nga xam ni itam xale yi commencé nañ ko di ko daal di incarner ak aussi benn nouvelle euh, forme de lutte bi nga xam ni itam jeunes yi ñu koy euh, li nga xam ne que moo di emploi jamono ji peut-être pour exiger la libération d'Ousmane Sonko. xam nga boo accepté le ndogal yàlla ci nit da ngay sonn. Hmm. Olof Njaay loolu la wax na. Hmm. sa xol dina bon foo toog yaa ngi mer Ousmane Sonko. Yalla, moi def loolu ci xol nit ñi Ousmane Sonko bala Ousmane Sonko c'était quelqu'un Abdoulaye xewoon fi kenen ak kenen même bo ci le président Macky Sall quand aujourd'hui Ousmane Sonko devient la personnalité la plus populaire au Sénégal. Hmm. bu ko ko bañal suba mom yalla da koy af effacer andi kenen mota la boo la ndogal yalla yow yaay bu nga ne Haman parfois da ngay dégg genre expression boobu ci woykat sénégalais day jusqu'à dañ koy faral di woy ne waaw nga ne déet yàlla da lay effacer da éliminer parce que munoo xeex ak moom c'est ce qu'on voit actuellement au Sénégal les jeunes dañuy dem stade di way Sonko ñu leen di ñu leen di au nom de quoi sëñ man dama jàpp ni ku dem stade pour établir pour c'est-à-dire que ambiance am stade bi woy ko dagan maintenant quand les jeunes vont au stade ñu woy ay Sonko sont nañ la mais ils ñu len pourquoi on gaze ces jeunes là parce qu'ils sont euh, dans un espace libre le stade c'est un espace libre c'est du loisir un jeu du loisir content, mais même à part ouais mais bien sûr hmm. Moi, en je parle des policiers et des gendarmes ils vont se fatiguer pour un rien non ils vont se fatiguer pour un rien tu sais pourquoi ils vont se fatiguer pour un rien tu peux pas empêcher les gens de scander le nom de Ousmane Sonko mais non, nekk quand même Nous, nous, tu peux empêcher les gens de faire des marches ou bien comment de faire euh, euh, de, comment euh, des, rassemblements. des, rassemblements. ou bien de faire des manifestations. Mais tu ne peux pas empêcher quelqu'un de scander le nom de quelqu'un. Nous nous l'avons. Moi, je peine perdue. Dans les sonnons, dans les sonnons, ça va sonal, andal. Quand les policiers gazent les jeunes là, dans les stades, yak match bi, voilà, nous dem ay touba, comment dire, train les gens les enfants les gens scandent le nom de Ousmane Sonko ou bien Fenan ak mais il doré You, c'est-à-dire que tu deviens ridicule mais bien sûr non c'est pas provocation lolu lolu mënoko empêcher tu comprends ce que je veux dire Hamanda, n'est comprendre c'est pas un ordre dans ce pays c'est loi waxul fi Sénégal il est interdit formellement interdit de parler le nom de Ousmane Sonko dans ce pays est-ce que loi décret génn na est-ce que décret Mo génn ni que Ousmane Sonko son nom est interdit au Sénégal nit bu prononcer tout, Ousmane Sonko c'est interdit mais il n'y a pas un décret Moi, je ma c'est dañuy sonal seen bopp mën nga empêcher ay marche rassemblement mais tu ne peux pas empêcher xale yooyu voir le nom de Ousmane Sonko bu fekkee à chaque moment bu ñu waxee tour Ousmane Sonko da ngay de grenade lacrymogène mais yooyu yaay au bout du compte il devient ridicule les institutions du Sénégal les les institutions là yoo xamante ne tey ñoom ñooy suñu bànqaas lu mel ni police gendarmerie GIGN euh, euh, euh, comment dirais BIP il faut pas prendre ces institutions là voilà ces corps de lutte dans des bassesses ci ay foo xale yi foo lañ ko jàppee xale yi lu tu lu tu tuur Ousmane Sonko bu ñuy wolé fo lañ ko jappé hein ah? fo fo ay jeu Sonko mu naañ la comme diou tak na jabar mais fo le fo lañ ko jappé maintenant bu féké fo bobu dañ leen ko bëgg a xañ même dans les plages da ngay dégg plage anniversaire Sonko boy diko ko diko, diko di ko wëy ça devient un jeu dans ce pays maintenant bu féké fo bobu jeu bobu yow dang ci gis sa bay ay parce devient ridicule parce que da ngay duñ ko pacifique pacifique. tu n'as jamais entendu les jeunes là chanter le tour Ousmane Sonko di ralé ay xeer amul. même dans les euh, stades ñu ak seen instrument seen instrument de musique ñu fecc ñu fecc. Mais pourquoi les Ngalendi gagé avec grenades lacrymogènes C'est comme s'ils ils ont fait un délit. Voilà, ils ont fait des infractions dans le stade. Mais non Au bout du compte, nous, Al-Kati, nous avons créé des incidents dans les stades. Nous avons créé des incidents dans les lieux publics. Euh, c'est susceptible euh, euh, à un, trouble à, Non, non, c'est pas un trouble à l'ordre public. Si les gens, si les enfants... Parce que nous, nous, maqués. Non, si les enfants auraient chanté Tourou Maki, maki yi nam nañ la duñu ñu ay grenade lacrymogène c'est ça la réalité buñu ñu buñu tu buñu woyon tour Amadou Ba nam nañ la duñu ñu dóor grenade lacrymogène wala kenen ak maintenant c'est Ousmane Sonko c'est la personne de Ousmane Sonko qui dérange dans ce pays c'est comme si prononcer le tour tour Ousmane Sonko délit wala décret genn na ci diganté bi ni que ken ben bindeef amul droit prononcer tour Ousmane Sonko ci mim rew alors que amul amul il faut pas que ñom ñu jël lolu def ko ay ay ay ay comment dirais-je xeex xale yi xeexuñu nee naa la xalé yi jeu lañ ko defee fo hmm. fo mbedd lañ ko def fo mbedd. Sonko nam nañu ni tàccu di fecc ni tàccu di fecc comme lu ñuy wëyee léegi ci ngénte ci mariage yi diw tak na jabar moy zar instrumental yi baatu boobu la ñuy changer tour def ko tour Ousmane Sonko diko wëyé ci stade ak ci les endroits là di fecc mais ñom ñoo né ñom ñoo eh, eh, démocratie lañu am au Sénégal non du loolu lañu wax. Hmm. les 1220 démocratie lañu magnifier dans ce pays loolu du démocratie le fait que les enfants jël benen tour di ko woy di fecc du loolu lañu soxla ci xalé Sénégal. Hmm. dañu bëgg xalé crispé wu ci benn côté tëj leen tënk leen ci benn côté ba xalé yi nooyatuñu ñoom loolu la bëgg dans ce pays quand on voit des jeunes qui s'épanouissent dans les stades qui ñi fecc mais bo loolu lañu soxla ci Sénégal que les jeunes se se se comment dire ñi ñi ñi ñi ñi di euh, esprit de rancœur bobu muy mu ngi si maintenant bu féké y a un fecc di scander le nom de Ousmane Sonko ñom ñu len di la lacrymogène mais attention ñom ñu ñi ngi xam encore il faut que ñu def très attention il n'est pas interdit au Sénégal de scander le nom de de de de d'un opposant wala de nom de quelqu'un comme Ousmane Sonko amul amul il faut que nous bàyyi ci lolo. les jeunes le assez, lu d'assez as tuuti nañ ko ñu Nous pas un délit. clair alors afin euh, exactement euh, plus de 1200 euh, intellectuels.